ngi leen di gërëm leen sant di am mbégte ñëw fii ci ndar ci Guet biñ xëyee suba ñu jaar Louga gis ngeen visité marché bi tey ñu ñëwaat fii dem ci daara ji visité waat marché bi lu tax toujours ñuy favoriser visiter marché yi mooy marché boo fa demee da nga fa fekk ah, jaaykatu produit agricole mbay maa nga fa napp gaa nga fa càmm gaa nga fa industrie yëpp nga fa te ndar dafa nekk dëkk boo xam ne nii dëkk bu yàlla barkeel la diine jiitu fi alxuraan jiitu fi jiitu fi ñu waroon a jël nag def ci programme yu mag a mag régler problème yi nga xam ne nii moom la pêcheurs yi soxla ci embouchure bi en même temps fexe ba gaal yii di am ñu dindi ko moderniser muy gaal yu moderne ñu nekk téeméeri at wala ñaari téeméeri ci gannaaw lii lañ doon nappe ñu dem ba léegi di ko nappe man en tout cas ci sama programme mooy ñaari yi moom pêcheur duutu ko jooyati gaal gu baax ak euh, camion frigorifique ndax déjà ñun def nañ ci benn programme boo xam ne nii yéen a ngi dégg xëy na fan yi da ngeen gis président di ko inauguré cinquante cinq camion ma nga ñun ñoo ko toppatoo wutal état bi financement ba léegi ma ci ñun waaye comme li may wax rek état bi téye na ko ñaari at wàcc ko ci ñun mënu koo utiliser ku munta utiliser ay camion mënoo def lu bari te camion yaa fi nit ñi soxla ko kon nag li ma leen di wax rek mooy Saint-Louis ak euh, maatam dañ leen di bool def leen benn pôle économique bu am doole jël ministre d'État nommé ko fi fexe ne ko dañoo bëgg balaa mettre cinq ans fii produit céréale bi Sénégal yépp di soxla fexe ba jën bi Sénégal di soxla lu ci ëpp danay jóge fii fexe ba dëkk bi culture bi fi nekkoon ak histoire bi ñu delloowaat ko fexe ba dëkk bi tamit tourisme bi fi nekkoon dikkaat ndar daanaka mën na kon am na infrastructure yi tax mu concurrence Dakar leen rek a des mooy defaral ko port bu mag port maritime ak defar ay yu baax yoo xam ne nii ñoom danañ ci mën a gaare defaraat fii ba mu neex a ñëw rafet ñu dale ko loolu mooy sama programme programme bi daal mooy yokk ba yëg ko fexe daal ba nga xam ne ni xale yi danañ liggéey accord de pêche yi moom dañ koy dindi organiser sénégalais yi ba nga xam ni ñoom seen bopp lañ koy jox ñoom ñu napp jën yi dem jaay ko bitim réew tubaab yi toog seen dëkk. di ñaan nag yéen ngeen jóg taxaw réew mi ñu wax rek dana am signal fort boo xam ne nii ku fi toogati da nga xam ne boo jàppalewul liggéeykat yi tamit ñu kat jële ci biti am mbégte ci yéen ndax fi ma dem ñu teral ma fi jox ma alxuraan ma jàng wóor na ma ne fii ba élection yi jeex wegu naa